waaw waaw ñun dañuy dem jàll <laughs> dañuy dem jàll non dañu xam nga ñun duñu wax lu leeru ñun lu ñu wax day leer waa PDS ay ensuite damay dellu si xam nga euh, Ngouda dafa wax léegi dafa am lu mu doon expliquer mais dama bëgg mu dellu si aussi ci article 3 sur la souveraineté du peuple su la souveraineté nationale appartient au peuple appartient au peuple qui l'exerce qui par ses qui sont ses représentants les députés les députés ce sont les députés wala le peuple par référendum mais loolu aussi war nañ ko waxtaanee xëy na du dugg ci débat juridique fi mu ne nii Sénégal dañu am yeneen problème problème bi mooy <laughs> non non non nañ ko teg problème bi mooy. jëlaat euh, euh, noo ko waxee woon au début danga ne bu ndox tuuroo an bàq des foofa ne ne dañuy rootaat rootaat bi nag mooy affaire bi mais léegi problème am na ñii nee nañu président à part du deux mënatul nekk président. ñii nee nañu seen ay droit il faut ñu jox leen ko parce que c'est des spoliés ils sont 49 processus électoral nañ ko suspendre ba jox leen ko après ñu kon ni ñii nee nañu ñun nee nañu suñu candidat dañ ko spolier moom itam parce que euh, bu ñu jaaroon yoon duñ ko téye ci ay nationalité ñii nee nañu seen candidat euh, DGE moo ko téye moom moo def li mu war a def wala caisse de dépôt et de compte kon y a problème y problème ñi ëpp processus bi les acteurs ñi ëpp problème ñoo ëpp ñi ëppul problème vingt rek xëy na lañ jàpp ñoom amul problème mais au moins plus de soixante dix am nañ problème mais doone ma vingt yooyu ñoo gën a représentatif les les soixante dix où est le peuple le peuple est avec les vingt ou avec les soixante dix le peuple est avec tout le monde le peuple c'est vague c'est tout le monde c'est vous c'est nous c'est tout le monde maintenant lan moo des nañu xam Sénégal l'universalité des citoyens voilà. pris loolu c'est le alors Mayoro xam nañ ma maintenant ma ma ma liiral la article 103. may mun a yaa ngi may daj. xaaral xaaral xaaral xaaral non maintenant Fofana vous la mettez dans toutes les sauces quoi. <laughs> du dëgg euh, tey may mun a. situation bi ñun ñëpp def nañ si ku nekk ak sa problème ba pare nee nañ problème amul mais léegi ku ci ne da jàpp ne yow yaa xam nuñ koy réglé ci on ne s'entend pas mais Sénégal léegi xanaa dañ nan lañ koy def dañ koy xaar. dañ koy toj dañ koy taal dañ koy séddoo mais loolu lépp mënul nekk lan moo fi des nañ ko waxtaane nañ teg lépp ci suuf ñu toog waxtaane ko pourquoi ñun ñu ragalante pourquoi ñun ñu ragalante koo woo ne ko kaay ñu waxtaan mun a du d'accord mais nañu teg waxtaan bu sincère je pense que ñun PDS kenn mënuñu def loolu ñu fas yéene. non les hommes politiques j'ai l'impression que mënuñu assumer devant les ils savent que le peuple est choqué. ils savent que le peuple n'est pas content. et aujourd'hui il y a Maïmouna. aucun homme politique. qui a envie de se risquer. à assumer le report à assumer. Euh, le dialogue seen militants yi ñoo leen ëpp courage est-ce que xam nga loolu. Ah, mhm. parce que les militants ont la liberté de dire ce qu'ils pensent partout. dans les rajo dans les plateaux euh, dans les grandes places dans les marché dans les lieux de travail chez eux partout alors que beaucoup de leaders politiques la ñuy wax ci suuf ca réunion ba ak ñu ñu wóolu ak la ñuy wax ca euh, kër ga ak ca militants yi ak ca permanence bu bokkul ñun xam nañ ci dara donc y a problème maintenant kenn pour man kenn kese mënul am solution bi il faut ñu dem foo xam ne ñun ñëpp la toog ñu waxtaan ca man jàpp naa ne dialogue bi mënul ñàkk dialogue bi moom mënul ñàkk ca man gëw ma ne 25 euh, février bi ñu def ci élection mooy régler problème bi au contraire sa va créer encore d'autres problèmes maintenant c'est très difficile pour les vingt hein yi nga xam ne ñoom dañu jàlloon quand même c'est une situation très difficile bu leen kenn xeeb aussi bu kenn jàpp ne ñoom it am nañu problème ñoom it commencé nañu am problème finalement tout le a des problèmes avec cette situation <laughs> tout le a des problèmes Ngouda <laughs> léegi nag ñu ne ko waxtaan na nañu xeex est que dañu war a xeex nañu dem arène nationale. Hmm. nu ñu koy waxee ñu xeex comme que policiers yi léegi mënuñu régler seen problème ci waxtaan. nañ ko def ni ko mbir yi defee ku mën sa morom daal ci yaakaar naa loolu du solution solution mooy Sénégal kenn mënu fi jëlee waxtaan. Hmm. tey bu ñu jaaxle woon ba jaaxle may mun a policiers yi amuñu solution sëriñ si la ñëpp dem seeti yaa ko gën a xam. ña nga jëm Touba ña nga jëm Tiwaawan ñu nga jëm Ndiassane ña nga jëm Laayeen ñu nga jëm Cenaba ña nga jëm fële Niassène ñu ngi dem ci église bi. mais l'archevêque a parlé ah. wa non man maay ah Ngouda yow da ngay ah, def léegi comme foofa. waaw léegi baal ma. d'accord <laughs> ñi ngi dem ci église bi ñuy dem fépp ca bu boobaa ñooñu du ñu ne xeex leen de doo fa dem ba sëriñ bi ne la xeex leen wala nu ku nekk def li doy xel danaa leen waxtaan leen parce que ñoom ñëpp xam nga la ñu wut jàmm. ci ndegam ñoom ñooy wut jàmm as ak ñun ñuy xëccoo réew mi réew mi. mais mais boo ko taalee noo koy yore. yéen acteurs politiques yi boo ko donc yéen acteurs politiques yi da war a waxtaan. dañu war a waxtaan man loolu laa jàpp. d' léegi qu' est ce que vous faites de la souveraineté du peuple c' était le moment pour le peuple de sexprimer exprimer c' était le momentum du peuple. mais ñun bu ñu. yéen acteurs politiques yi. Mhm. yéen PDS ngeen ne élection du am te seen candidat bokkul. ñu ne waa majorité Benno Bokk Yaakaar report da leen arrangé. Euh, euh, pour diverses raisons yeneen candidats spoliés ñu ne nañu rabaat ñenn ñi ci ñoom ñu ne nañu rabaat pour ça veut dire que aujourd'hui Sénégal yéen homme politique yéen yéen a am problème et puis ngeen ôté ñu le droit de nous exprimer et de prendre position après vous venez nous dire. dañoo war a waxtaan no mais ñun ñoo leen ëpp doole. peuple moo ëpp doole. non nous faisons moo ngeen ne dañoo war a waxtaan donc yéen politique yi. da ngeen dem toogaat ak Macky Sall. ngeen ngeen xool nu leen mbir mi dem toog ak Macky ngeen xool nu leen mbir mi arrangé ngeen tëgg seen i seen i seen i règle tëgg seen i euh, pro seen tëgg seen processus bu bees. et pendant ce temps et pendant ce temps pendant ce temps nous le a mal nous, le nous les Sénégalais qui ne sommes a mal. may mun a dinaa def li nga il faut nga wax ji. Ah, poli Macky Sall tëgg gouvernement bu bees. non on a mal et qu'est-ce que bu faites de notre douleur. comment est-ce que vous allez réhabiliter le Sénégal comment est-ce que vous allez réhabiliter l'image écornée aujourd'hui du président de la République Macky Sall de petits la français ma dégg leen ñu taxaw di saaga suñu njiitu réew di saaga suñu réew. léegi nan ngeen ñuy dàmpee man loolu dama bëgg ngeen wax ñu solution c'est-à-dire comment à partir du 2 avril nous Sénégalais on va encore retrouver notre fierté d'être l'iceberg de la démocratie d'être un pays stable d'être un pays de la teranga d'être un pays qui office qui fait office de bon élève en Afrique moi je veux que tu m'emmènes une solution. man je ne veux pas que le Sénégal soit un bon élève en Afrique je veux qu'il soit le maître. oui parce que comment retrouver notre hein, que le processus électoral soit revu et qu'on euh, prenne six mois pour refaire les élections c'est la fin du monde c'est pas un tremblement de terre si on avait une catastrophe euh, nation euh, naturelle mais dañuy dañuy dàq élections yi kenn ko def ca bu boobaa ce discours laa ngay wax non il faut pas accepter que ñu ñu ñu ñu change sa mind c'est-à-dire que des gens de petits journalistes comme tu dis qui sont intéressés leurs positions sont des positions pour la plupart intéressées pas désintéressées parce que pour la plupart ils parlent dañuy maa ngi wax sax dañuy wax pour ay lobby. dañ leen may porox ndollu nag. d' accord mais porox ndollu yéen ay journaliste ngeen. lan moo tee ngeen analyser la situation ngeen taxaw wax il faut être des patriotes nous sommes tous des patriotes da war a taxaw ngeen défendre seen réew ak lu mën a xew. mais bu fekkee ne yéen da ngeen prêter le flanc vous vous tombez dans le fatalisme que oui de petits journalistes ñooy attaquer responsabilité mooy réew mi c'est pas parce que dañuy mais moi je je j'aime le Sénégal plus que j'aime le le le le calendrier électoral j'aime d'abord le Sénégal je veux sauver mon pays bala may sauver ay calendrier électoral de quoi. de quoi c'est quoi la menace Maïmouna tout ce qu'on a a là de rien de rien non non non mais, il faut nous prendre au sérieux quand même. avec tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé on a sauvé de quoi de rien voilà donc y pas de problème on se on s'en va le 2 on va le 25 on fait les élections lu demee noonu parce que y a trop de problèmes bu ñu ragal problème yi maintenant on peut ne pas s'entendre sur comment régler les problèmes man d'accord naa si loolu mais tant que waxtaanuñu du sotti ñi fi toog ñëpp ku ci ne am nga problème boo xam ne mën nga ko wax ak boo mënul wax ba yow nag dafa mel ne yaa ñu ëpp problème yow parce que loolu nga fi wax mais ba pare ngeen ne problème amul yaa ngi mais mi ngi jàmbat boobu ba léegi parce que y a problème parce que am na situation bu ñu xamul woon bu am may mun a tu as raison lan ngeen di jiifalee suñu xol waaw lan ngeen di ñun ñun dañoo am lu ñu metti ñun dara metti comme ñun dara metti wuñu ah, ah non dara méttiw leen parce que da ngeen ne woon y aura pas d' élection sans Karim Wade y a y aura y a pas d' élection sans Karim Wade mais loolu moo ñu gën a loon ñun loolu lañ doon li ah, li ngeen ñun defal naa defal naa en décembre bi ñuy déposé suñu candidature bi ñuy dem di def suñu ay parrainage ak di def suñu yëpp déposé suñu caution est-ce que dañu prévoir woon situation bi est que ñun dañu amoon beneen candidat bu dul Karim Wade est-ce que ñun Amadou Ba mooy suñu candidat est-ce que ñun euh, Ousmane Sonko mooy suñu candidat est-ce que ñun Maïmouna mooy suñu candidat mais mais Mayoro proposez solution c'est-à-dire le vin est tiré. la solution waaw xam nga luy la solution. il faut que ñu toog waxtaan yow da nga xam beneen solution bu dul toog waxtaan Ngouda dégg nga ko il est figé dans ses positions parce que c'est sa conviction il faut le lui reconnaître euh, Sarr euh, naka Sarr encore Pape Amadou Sarr li muy wax daf ko gëm mon ami Fofana la même chose yow Amé Ba ñun ñëpp man yaakaar naa ne kenn yaa du ma xool rek yaakaar ne man li may wax dama koy caaxaane mm. lu ma gëm la ci mu jaral ma lu ne lépp lu ma yoon may jaral na ma ko xooluma lu ma nit di wax xooluma naan way yéen way PDS waru leen ki waru leen waru leen waru leen ëllëg si biir kenn ku nekk yaay xool nooy xeex ba ñu jox la say ak say yelleef say droit kenn du la jàngal noo koy jëlee Abdoulaye daf ñu jàngal kenn du la pes ci ju euh, euh, nu ko la xe lex bii ngay joxe beneen bi ku la pes fii pes ko fii ñun Macky Sall n'est pas notre candidat Amadou Ba n'est pas notre candidat ils ne seront jamais notre euh, notre Euh, Ousmane Sonko du suñu candidat Maïmouna du suñu candidat Pierre Amé du suñu candidat ñun Karim Wade mooy suñu candidat. bu ñu demee ci waxtaan bi. lan la ñuy waxtaanee. ah loolu nag ñun ñooy waxtaanee li ñuy waxtaanee. personne bokkoo si. naa la la la la la comment on appelle personne ne nu nous exiger lii la ñuy waxtaanee. mais Mayoro. dañu koy waxtaanee li ñuy waxtaanee dañ koy waxtaanee. Mayoro. les seuls. voilà les seules. léegi solution. les seules personnes habilitées parce que bi nga bokk. loolu ngay réclamer les seules personnes habilitées à représenter le peuple. c'est qui. et à parler au nom du peuple. Mmh. ce sont ce sont les députés de l'Assemblée nationale. il vient de vous dire que y a 120 députés qui ont contre 24. ils ont parlé au nom de qui. vous allez. ils ont parlé au nom de vous qui. allez c'est 124 vous allez. c'est 124 députés. ils ont parlé au nom de leur parti. Ah. et des intérêts ah, de leur parti. la constitution. ça c'est un autre problème. l'article 3 il faut. on les a élus pour parler au nom du peuple. il faut changer la les juges sont des représentants du peuple le conseil constitutionnel représente le peuple sénégalais. oui attention et il a rendu une décision qui s'impose à tout le monde au pouvoir public attention les pouvoirs institués c'est à la fois les pouvoirs publics. et l'Assemblée nationale n'est pas seulement. Gouda, la l'article 3 ne parle pas des membres non, de la, moi, L'article parle des représentants. Mais le président de la République n'est pas un représentant du peuple. C'est le premier représentant. oui le conseil constitutionnel mais, est un représentant mais, du peuple moo tax ñu def leen des institutions attention. article 3 assemblée nationale day le conseil constitutionnel représente le peuple. moo tax foofu conseil constitutionnel lu tax ñu nommé leen foofu peuple bi dans sa constitution nguuda boo jëlee député yi bàyyi. nguuda mais légitimité ak ah. ascendante ak légitimité descendante. voilà dama lay fay sama. sama grand non non moi je pense que gis nga lii ñuy def. ah lan moo tax les hommes politiques mënuñu ko. te ñun ñi kenn du fi candidat. te on parvient à se parler même si on ne s'entend pas ku ci ne jox nga sa morom cër. mais Sénégal lu ñuy waxtaane la kenn du ko xar kenn du ko taal kenn du ko yàq parce que ku ko yàq ñëpp nga yàqal. le peuple ne l'acceptera même pas. ñun on est pour le dialogue un dialogue sincère nag constructif inclusif pour que délai yi ñu joxe buñ ci àggee ñu def élection maintenant. même li ñu décidé gum ce qui a été proposé à l'Assemblée nationale ñun ñu ne 6 mois euh, ñoom ñu def amendement ne euh, dafay nekk ci période hivernage ensuite màggal bi mi ngi ñëw gàmmu bi mu ngi ñëw mais mën nañu waxtaanaat ah. waxtaanaat quoi. ah je sais pas. waxtaanaat quoi. je sais pas. xëy na pour mu gën a jege. Mhm. pourquoi pas na fekk ne sénégalais yëpp ñoo ko. wala mu gën a bu gën a bu bu. non non non ñun non non mën naa eh, gën a sori. na leer non non ñun ñun li ñu gënal. Ah, ah yéen a ngi tijji porox ndollu de. dafa naan ñun buñ li ñu gënal mooy lii ñu jàpp nañ ko jàpp bu fekkee ne sa toog nañ ñun ñëpp wax ne dañ koy xëccaat ñu xëccaat mais ñun mbokk 2024 c'est l'année électorale pour nous PDS e bugguñu luy génn 2024. naa bu gënee mën a ñëw gën a jege si lan la ñu wax décembre bu dee novembre baax na bu dee octobre baax na mais pas au-delà. merci waaw parce que sénégalais yi aussi bu ñu leen téye ci benn kii ñu jëmale bu kenn xamul. alors waaw Pierre Ahmed Ba